wax dëgg yàlla yàq ngeen suñu temps bi yëpp te defoo leen fi dara wax dëgg yàlla Lac de Guiers il est toujours à la défensive bëreem yëpp défendre la ba booy bëre ak moom sax dangay ngay mujjee nekk défenseur ndax moom défenseur la franchement nag l'arbitre est très professionnel te mën a muñ doon man wut naa liif fa liifi mbër yi bu yàgg te dem sama yoon te wan leen ginnaaw combat bi bokk na ci combat yu gën a soof ci histoire lutte sénégalaise combat bi saful soxla te aussi saful xorom papa nag ñu waxante dëgg rek nag Eumeu Sène moo amuloon nag deful benn effort bu cëpp cëpp woon comme Lac de Guiers ni cëpp cëpp jàppante dina am combat boo xam ne na 45 minutes te jàppante sax amul. non c'est Lac qui devait attaquer pour arracher sa victoire ndax au moins sax mu am roi des arènes muy lambar rek Lac de Guiers ay combat yu naqari dal dal dal, rek la ñu tàmbali. ak yow ba sa avertissement ëpp wala mu match nul. mais nag Eumeu Sène bi xam dëgg dëgg dëgg Eumeu nga xam da ngeen daan ba mu combat bi nañu nañu jënd nañu. mais nag ponkal bu amul envie bëre wala ngay bëre défenseur foo jaar di nga mujj défensif combat bi bu doon combat jigéen sax jeex na bu yàgg wala mu am songoo oh ñii lan rek lañ war a wax waa koñ ba man damaa bëgg xam ba xam mbëri dañ leen wax ñu respecté barrières yi wala man songoo leen bëri ñu naan le virus est toujours là ça ils ont respecté la distanciation physique vraiment mais ni dañ leen war porter plainte mais les àq la genre combat ils lañ war éliminer si làmb ji fout tous De du neex mais nag papa lu ñu tuddee Macky Sall nii rek la mën a du avancé mbuk day delu ginnaw rek lak deugé lu muy tëb di dal di melni usain kayta la laa xamul moy lan ndaysan Pikine aussi japp leen si amade, eumbe de pare na ah. kenn du Modou wala bal lagay si lamb ji ay bu doon budon bu doon man sax combat bi jeex na ni est-ce que nekkul li ba wax motax tax ñoom ñaar kenn bëriwu wusi lu ba wax lamb joonon wax deug yalla lu ñu si sama jënd ji di ba dafa leer ndax li la ba wax leer na ban combat la la jëkk wax moy Diène ak eh, Modou Anta lo ci gis combat bo man victoire lay lay man lay lay wax. tam kan mo am victoire. Karang Taba neena Modou Anta day dan jën kayra. Modou Anta day dan jën kayra. jeul bu set wetch lol dara du ko dindi. nañu xoli jeul bu set wecc bi. ndax du ko takk. jërëjëf koy fàq. Eh, eh. jërëjëf koy kor. kor na ko dóor na ko. jën kayra am na njam. na koo dóor na ko siggil ma jàpp. jën Modou Anta. caxabal caxabal kal kal oh. kal kal daan na ko laa ilaha illallah Modou Anta Diène Kaïré daan na la sëriñ bi karantaba est-ce que loolu la wax yaa ngi juum de problème yaa ngay soog a démarré nag xam naa karantaba daa juum rek sëriñ bi beneen combat bi nag Eumeu Sène day daan Lac de Guiers jël wu set wecc te loolu dara du ko sëriñ bi karan taba nax na la de doo jàpp benn sax moom tey bu doon pari foot naar bi dina ko rey perte diit lese double fracture ngay am foof waaw ma ni double fracture am foofu ah waaw baax dama yaakaar ni karan taba da doon gént te boo laajoon sëriñ bi li mu wax ni fan la ko teg mu ne la fu leer teg te fekk man teg naa ko fu wér sis ñoo ngi si ban mois avril ndeysaan karan taba da ko doon poison te xamu si dara problème yaa ngi soog a démarré nag problème yi kay